laa ilaaha illallaah faal bismillaahi rahmaani rahiim auzu laa hawla wa laa quwwata illaa billaah ngi nuyu mbokki taalibe ci seen tur di leen fay ci seen i sant di ñaan maam Cheikh Mountakha mi Cheikhul Khadim yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te mu wér ba naal bi yegg teeg ak sago di ko ñaanal Serigne Cheikh jëmb naal bi yegg teeg ak sago moom mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal Serigne Babacar Mbaw jàmbaar ja Baye Fall ba murid saadix ba ki doxul jëm ci lenn du ndigal sëriñ bi ak bëggam fii nu taxaw tey jii di kuréelu julli liggéey gi am liggéey bu ñu fi exposé te liggéey ba jëm ci projet Mbacke Kajoor liggéey boobu moo nekk sunu ginnaaw nii ngeen di séen di ñaanal murid yëpp nag di jaajëfal it sunu jëwriñ sëriñ Matar Jeeju mi nga xam ne sunu borom dogal na moo saytu liggéey bi ànd ak donga yi ci liggéey bi di ko yor yorin wu rafet woo xam ne nii laabir ga yaatal gi àgg na fu kayo jot liñ ci mën a tënk mooy liggéey bi keroog bi Cheikh Sidil Muxtaar yëkkatee ndigal li teg ko ci loxol Serigne Cheikh Jëmb Serigne Cheikh Jëmb saytu liggéey bi woo Serigne Babacar Mbow teg ko ci loxoom sëñ Babacar woo boromi xel ak ñi koy saytoog ingénieur yeeg entrepreneur yeeg ñëpp ñu saytu liggéey bi xool ko muy suuf soo xam ni di suufas bénéfice di suufas cëslaay di suufas yokkute di suufas teraanga di Mbàkke Kajoor di gis Bamba ku xam na ni suuf soosa ni ko Cheikh Sidi Mokhtar fonke fonke bi na ko waajurum fonke moo ko fawxa na ko Cheikh Khadim fonke moo ko fawxa kon dañuy jàpp ne liggéey boobu ci lañ toll nii liggéey bi àgg na foo xam ni ci maanaa ci ci ci ci kawe àgg na foo xam ne nii ci tàmbali yaakaar naa li may faral di wax rek saxaar la gu ne ci raay bi di di dox luñ bagage yoo ci teg mu yóbbu ko waaye tollatuñ ci di xaar juróomi kenn maa fukki kenn kon yaakaar naa liggéey bi àgg na foofa ndax yaakaar naan liggéey bi Euh, dayo ba faw xëy na un milliard cinq cent millions buñ ci yeggee ci wàllu baati tubaab Mama Samba mi dina ko leeralaat bu baax a baax a baax a baax la la liggéey ba ak ñay projeté liggéey ba mu àgg foo xam ni yàlla ñu sëriñ bi dimbali ba nu yegg ca maanaam la Cheikh Sidi Mokhtar waxoon sëriñ Cheikh Jëmb ni ko liggéey bi su fekkoon tey jii jàpp naa ni àdduna dina tukki te du pare ma téye ci loxol yàlla suñu borom ba liggéey bi sotti. luy xew soog a xew kon liggéey boobu kon yaakaar naa ni tabbi ca wala saw ñàkk tabbi ca dafa gën a dal xel foofu la ñuy tënkandi la ci des maam Samba dina ko développé incha allah bi ñu ngi tuddee jégalu wa salaamaaleykum wa taala barakaatu. salaamaaleykum mbokk murid yi mbokk taalibe yi ñu ngi xaar bu baax a baax euh, di di di nuyu ñëpp ñu ñi ñi ñi fi nekk te di di tàmbale ci char bi sëñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko suñu kanam di ci teg sëñ Cheikh Jëmm Fall yàlla yàggal ko suñu kanam di ci teg sañ Babacar Mbow yàlla yàggal ko suñu kanam Euh, maanaam tamit euh, liggéey Mbàkke Kajoor moom mm, comme ni niñ ko xamee rek Cheikh Sidi Moukhtar moo si joxee ndigal ñu tàmbali ko boobu léegi nag ñu ngi ci. léegi nag euh, je vais m'exprimer en français donc le projet euh, a débuté il y la trois quatre 3 sur ans le ndigal de Serigne Sidi Moukhtar Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram donc qui a confié la mission à Serigne Cheikh Dieumb Fall. de revivifier et de réhabiliter le projet historique, le, le, le projet de Mbake Kadior, donc, qui est un site historique euh, euh, assez très très très significatif pour les Mourides parce que c'est le berceau en fait du Mouridisme. C'est-à-dire euh, le Mouridisme en soi est né à Mbake Kadior. Donc aujourd'hui, on a pour mission de, de, revivifier le lieu à travers, euh, euh, à travers euh, le, projet de Mbake Kadior qui est là donc. et qui, est, qui se présente en fait sous quatre édifices. Donc le premier euh, qu'on a commencé il y a de cela maintenant trois ans, c'est le, le, euh, le, la maison de Mam Charafal, donc euh, qui est, qui est d'un hectare et donc euh, qu'on a commencé jusqu'à présent, euh, qui est, est arrivé à un certain niveau, c'est-à-dire il y a juste les dalles et les portes. euh, qui manquent, mais les travaux avancent bien globalement. Et donc il y a aussi le, le lieu de pèlerinage qu'on va faire comme le, le mausolée de Cheikh Ibrahim Fall à Touba. Donc euh, l'architecture euh, sera pareille. On a également entamé les travaux, c'est jusqu'à un niveau avancé, très avancé, ça avance bien. aussi le projet agroécologique, c'est-à-dire euh, un centre de formation en agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, c'est une forme d'agriculture euh, qui, qui, qui, qui respecte la nature. Donc euh, c'est ça la base de l'agroécologie. Donc on va euh, revenir également sur les valeurs euh, humaines qui, ont, qui étaient auparavant, comment dirais-je, embrassées par les cultivateurs. Donc il y a aussi le centre de formation professionnelle, Mamor Antasalim Baké, Qui va être euh, édifié. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais euh, ça va être une centre de formation. Donc pour les jeunes de Mbaki ça va permettre en fait de former les jeunes dans tous les corps des métiers donc euh, pour que les jeunes puissent travailler dignement et rester dans leur terroir. Donc euh, ça va lutter contre le phénomène de l'exode rural. Donc on lance vraiment un appel à tous les Mourides parce que c'est un projet de société, c'est un modèle de développement durable au Sénégal et on aimerait vraiment que ce modèle s'élargisse. À part ça aussi, euh, il y a aussi l'espace le, le, agroécologique qui est de 8 hectares qui va donc être euh, un éco-village Euh, pour l'autosuffisance alimentaire du site. Donc il y aura de la pisciculture, de l'apiculture, de l'élevage, de l'agriculture. Donc vraiment, toutes ces activités sont menées euh, à Mbaki Kadior. Donc on voit ici bien les produits qui, sont déjà, qui ont déjà commencé à être euh, mis en œuvre par les femmes de Mbaki Kadior. Donc de très beaux produits. Donc vraiment, on voit déjà que le projet... Euh, Euh, euh, appui et faire, commence en fait à, à, à, faire beaucoup de résultats parce qu'il y a une centaine de femmes aussi qui sont des des langues et sur de métiers, la teinture. Donc on voit ici aussi les produits. Ça, c'est des produits faits à Donc voilà, et c'est en train d'être commercialisé petit à petit. La marque s'appelle Mbake Kajor d'ailleurs. Donc on lance un appel vraiment à tous les mourites à venir participer euh, dans tous les, de les manières possibles au projet de Mbaki Kadior parce que Mbaki kajoor euh, c'est un lieu euh, béni, c'est un lieu de pèlerinage et de commémoration de la euh, rencontre de Cheikh Ahmadou Bamba et de Mam Sharafal. Nous La ilaha